sëriñ bi la ak mboolem ñu jëkkoon a ngëp ci moom asal duñu maasum kenn ñoo gën ku nekk ñoom sëriñ bi la ak mboolem ñu jëkkoon a ngëp ci moom asal duñu maasum kenn ñoo gën ku nekk ñoom ku def ibra faal ak seex ak ibra faati ak sëriñ ma dundumbeb kenn dafay ndaw lu dof te juum ku def ibra saar ak aadama kii ma baabu géy moroomit da dib dof rekk buy say dañoo ko tiim ku def abdurahmaanit moroom ak ma sàmba joo ba kii sirelu yaaram bi moo mata def ci buum ku wax lëf ci falloo ki basiiroo ki mustapha lu dul jàmm ku yiw al ku tuubal te far ni xiim na ngay boole doomam yépp ak ñépp tagg yow akay sant mbaa ngay noppi sab dénk ngoogu doom ku wax lëf ci isaa jenn ak balla faali jëng lu dul ñoo ko gëm seenub sëriñ yow dalal di miim te moona suleymaan it ku wax lëf ci ay mbiram lu dul moo ko sellub yar xamul lëf ci ay soloom sëriñ madu laamin mbay ku wax lëf ci moom itam lu dul moo ko jàpp njaamburam réere ne jikkoom sëriñ paate am mar képp koo xam ni wax na lëf ci moom it lu dul aw yiw xamul booba ab dayoom sëriñ madu laamin gay ku jóg wax ci lenn lëf lu dul moo ko dis gor dib jullit réere nay meloom sëriñ Madu Gay jëm moo itam bu ca wax lu dul ngor ak diine ak saytu njabootam ci ab loxoom te moona Madun Mbay Njaay itam bu ca wax lu dul rafet njortu cib sangam akay ween ak sagoom moytu yépp seenu wuute aw yiw la rekk ngir lañuy def sëriñ bee tax te jeena ci yàlla moom te yal na nu may ak jee ci moom ak desu ngërëm akuk cant ak ndolleen lu tax ñépp bokkuluum waxal ci sëriñ Tuubaa lu yéemu lu sedd xol te koo dégg ci gaayam ni kooku amul moroom sëriñ bi amul kem ñéppi dongooma moo fi gën mbiram mi ngi tukkee nag fa yàlla ki mat boroom fa bala yow sa mbir jox ban ba mbaa kenn ci wu nitam te may ñépp fawub yar di sëgg ka dammi woom mayal ndaw te may góor ak jigéen ak ku nekk ab yar ak kersa bul fiiree ka gaañee ka dox di boom ku am laf bu dul def ndànk léegi mu gaañu nit defal mag mu dul dóoree ka jox kenn benn góom te yal na nu am nag nun ci barkeb sëriñ bi ak ci barkam ñu ñam aw fan wu gudd ki koomi koom te yal na nu am ban baaki gaayam ñu am nu nag te far bég ci nun fawwit nu far sant bég ci ñoom te yal na nu am ban baaki gaayam ñu am nu nag te far bég ci nun fawwit nu far sant bég ci ñoom siyaare si naa laa ban ba ngir bëgg a jébbulu bu wér nag ci yow ngir yàlla ak bëgg a sébbulu siyaare si naa laa ban ba ngir bëgg a jébbulu bu wér nag ci yow ngir yàlla ak bëgg sébbulu na taw bi ñëw ak yërmaande sébbulu jot na nag na suu sépp tooy ak xol yi xépp nu xëy falu danoo bëgg am ren ji sa cant gu rëy gu wér te jébbal la junni junni yow daala am solo dangay wéy te yow doo dëpp moo tax ku bëgg sax ci yow dëpp rekk kay gémmiñam noo ngi koy felu musal nu te may nuy tànk daaral nu këng it falang lu nu jaaxal yokk nu cant nuy jalu xabal jàmm jópp ak doole ak suturaaku yiw dugal ko ci nun nuy sant kay gont kay jëlu fabal sag cofeel ak daara ak dara jaaku yiw saxal fi nu nag ndollente may nu palak falu waxal yàlla muy xittee ka dotti ba fépp taa nu dolli ku ay baykat te dolli ku ñuy falu na it te ji rëy yóbbal bi rëy fit wi yéemu rëy te xel mi rafet wéttal wi mat sëkk nuy jalu yaram wi na wér wërsëg wi yaafan wi guddutal te jëf ji rafet mbooloo mi yokk nu sanc lu na may yépp ñëw mooy yépp teggi nu nuy gërëm yawit ngay gërëm nuy dem di dikk ka yóbbulu musal nu ci yees ak ëppal ak yeex a jébbulu te def nu ñu xir ñuy teel a jag teel a sébbulu musal nu ci yées ak ëppal ak yeex a jébbulu te def nu ñu xir ñuy teel a jag teel a sébbulu mayal ku la gëm naataange joo xam ne dootu dañ te yokku fanam dolli njabootam fegal ko lor mayal ku la gëm naataange joo xam ne dootu deñ te yokku fanam dolli njabootam fegal ko lor te leeral sa digg ak moom itam ba mu waaru bég nga ubbil ko buntub cant muy sant kay sawar ñi lay sopp may leenug juba ngërëm ak alal te fekk lu ñu bañ faj seeni aajo ñu mokku xir te dollil ñi lay santug cofeel ak njariñ lu wér te yombal lu ñuy wut lépp far seeni mer mu far te mboolem ñi lay jox ñépp jox leeni may yu rëy yu ànd ak ngëneel ak barke ak sa ngërëm lu wér ñi lay dox di tagg ak gaa yi topp ci yow di way ba max leeni mbég yoo xam ni ëpp na xel yi far ñi lay gëm a koy doyloo ba ngëb ci ñi ngëb ci yow mu yooloo ni palmay leeni sàll ñu waaru war fu nit nekk ngir yow ak sa barke defar ko yow te dal di seral guy yub xolam def ko ab gawar fulal ñépp tooyal xol yi xipp te xëpp nuy ngënee la ki yërmaande ki ndolleen fegal nu gar fegal nu gara ngaañam te nooyal ko nepp nag fi nun gépp gar nay mel fi nun ni ku nee ku dër bu lor jëm ci nun sax lépp luy lor bu buuratee na mooy sori ñépp ak nun ñagub mucc faf nu wër bu lor jëm ci nun sax lépp luy lor bu buuratee na mooy sori ñépp ak nun ñagub mucc faf nu wër saxal nu ci néegub cant boo fete ñuy ngërëm taxat de ko mucc ak yiw nu raw ay te njépp lor saxal nu ci néegub cant boo fete ñuy ngërëm taxat de ko mucc ak yiw nu raw ay te jépp lor sëriñ bi na waamey cant ak barke dal di ñëw ba gàncax gi naat ak xol yi doo fekke aw maral sa jëmm ji lee tax ay du ñëw yàlla yow la rus rusul ku la mooy yow dongateet nu ci sumbugal li lee tax manaa yàll nang fi yàgg te saw yaram di sedd ak wér ngay may ndigal ñépp a kay bégal bu lor nee baret ngir bëgg dikk nga dal di jañ njariñ lu faxit ngir bëgg noo raw nga gor ko pil njariñ dootu raw lor dootu jot kenn lii kërëy jañal nga nu bon bon yépp faf bett noo ki pal wutal nga nu ndomb ak tànk koo seen akuk palam amul ci sa ñuñ koo xam ni kii amul dogal wutal nga nu ndomb ak tànk koo seen akuk palam amul ci sa ñuñ koo xam ni kii amul dogal sëriñ nga bu gën mboolem sëriñ sépp tey fa képp julit ñépp paasal nooti tey joowa kay dawal danaa boole tuub ak cant ngir boole koo ma war ku yor may yorung mooy sant tuuba ko war asal danaa joowalit mboolem julit ñi fa yow mi am lu faj lorte am yërmaande sébbina séppilil maral wi na dañ mboolem ku wopp na dal di wér ku ñàkk na am koo xam ni suufe na yëkkatil ñu nekk ci kaw suuf sépp yow la ci yàlla yëg te yow la ci àndal yow la ci xoola kay waxal waxal nu fa aslëf ndax mu ubbil nu bunti mbég te tëj wunti lor ak wunti mooy dàq aw maral waxal nu fa aslaf ndax mu ubbil nu wunti mbég te tëj wunti lor ak wunti mooy dàq aw maral musal nga nu biir ak biti fal nga nu door a dem sa dem gii du lor jaajëf ko wàcc añee ca des bégal jërëjëf sab der rafet na sa tuuma set wéel nag ca firdaw seeki cant ni far galas defar nga sa digg ak yàlla ak yonnenam ba yow defar nga sa digg ak ñépp gën ñépp xëy ni mes bi ngay dem lu dul dem jëkkatul mbay mi lépp a ñor ni xom mu xomas góobee ca des réera bon du tus ku réeree tawat dem gi nga dem ndeka xam la xew du wax lëf lu dul muñ sant yàlla ci lin ci mus ku togg ba sottal sax lu muy defatee ka wax lu dul yàq yaa sottal bu yàgg si fal te fas bi àddina ji sottee sa mbir sotti lépp jub na ngay def ba doo jóg seeti àjjana moo fi sës gërëm yàlla ak yonnen ba rekkan war ci yow ku santul ci yow yonnen ba ak yàlla mat ni mbas dangay bay ba ndaw ñëw woola wàcce la jox la ndam ñu wàcce la bépp coono yow daa la wàccu sas di fàttalikub coonoo ki nguur ak ki sant des ci yow lépp loo daa mus lu dootoo ko dégg bis musal mu ci dunyaa ji nu nekk ba bis ba nuy nu yootee ki cant ak mbég nga boole nu may lu fes ba bis ba nga nuy gis yow nu gis la nga reenu ree bu kenn gis ci nun ñii wenn ay bu ko wenn gis ubal sunu digg ak ñépp faw ba kenn du ñëw taw bi sa digg ak nun du yal nu ba kenn du des ubal sunu digg ak ñépp faw ba kenn du ñëw taw bi sa digg ak nun du yal nu ba kenn du des gërëm naa la yaaxut bal waraa mbàkke ndaxte man bawoo maa ki doktoor ak kolee kii ñu kenn xamul gërëm naa la yaaxut bal waraa mbàkke ndaxte man bawoo maa ki doktoor ak kolee kii ñu kenn xamul dangaa jàpp saa raggi xol ak saa yaram di faj akay mocc baatag gooki bon bon te kenn yëgul te dàkkul ngam ak deefar samay ragg fekk ko nag te guddal sama fan may ma xiiwal akuk jubal saxal nga fi man xiiwal saxal ma ci sépp saa ci cantak ngërëm man mii ba àjjana yaa ma fal musal nga ma ci bon bon musal nga ma ci tawat te nëbbal nga mag bon gog bu feeñan doyu la jël te boole nga ma kës lëf lu may sàmm kay bégal ba nee faama firdaw seeki may donga ngi dugal te boole nga maa kas lëf lu may sàmm kay bégal ba nee fi ma fir daw see ki may dong a ngi duggal dangaa jàpp saa kër gi defar jàpp gee jagal ma far jag samay kër jag lu dul sant kay desul ma sàkkooti ndolleen ndaxte doo jeele lenn lëf te bëggoo lu dul kay laaja kay am te doylewul faral dolli mag mucc ak wér ak wër sa gëngërëm te yokkal ma saafan wii te def ma ku lay jëfal ku lay dox di gonlul faw yow mii ak ay xëyal ni ngay dox di gonlul Mustapha faw ak ay xëyal doxal saa digg ak waxte fa kiy jinne ak njabar bu nekk ak lu bon lépp ak ku bon man nga lii defal njagam yeewu naa mbaa may nelaw dénk naa la man samay mbir lor ak luy lor balaa jëm ci man fegal njagam yeewu naa mbaa may nelaw dénk naa la man samay mbir lor ak luy lor balaa jëm ci man fegal sëriñ baa ngi yónnee ndaw ci nun boole koo ki mbég bu ndaw loola yegsee ñépp ñeenu waaru bég liggéey yewu noote si lëf lu dul xaaru gan ñu gën ñu ànd ak ngëneel ak yërmandey yàlla jépp nag ganug yàlla day wàccey njariñ dàq lor mu dem du maasum ganug saytaane yàlla na ko yàlla fekk ku ñëw faj sa lor yët lay njariñ sax fi yow di jub du maasum ka ñëw fab say njariñ xañ la jàmm teg soril nañu nug ceytaane faw wag lu koy xisaw fegal nañu nug ràgg ak jibar lépp faf na jag bu saytaane nee ñokket ñu fil ko mu moy nu nun bu yërmaande nee ñokket ñu jañ ci sunuy wanag bu saytaane nee ñokket ñu fel ko mu moy nu nun bu yërmaande nee ñokket ñu jañ ci sunuy wanag sëriñ beene fii moo nekk fépp te moonu yor lu jang mooma loo gis mooma moo teenu diglu ko sëriñ beene fii moo nekk fépp te moonu yor lu jang mooma loo gis mooma moo teenu diglu ko saxaaray ndigal jóg ñëw fa gaaram ba moonu war di digloo ko muñ tey sant yàlla ba dugg ko ku dugg ndigal jot gaaya duggul te teel a xëy ndigal yow ndigal yàkkamte day xaña ndam ba ko samay mbir a ngi saa jëmm a ngi sama lépp a ngi ma jébbal sëriñ bi yàlla na fab lépp saytu ko te yàlla na nu baaxal ñag nu dàkkul nu lépp lëf lu baaxul fegal nu jëm ci loo xam ni tànnu ko te yàlla na nu xëy fees ak lu ñépp ni ngéeja am te fees ak cofeel ak gëm gudul dañ du rekkiku ne naa ca samag def ak samag bàyyi ak samag bañ ak sama bëgg ak bopp ngir yàlla dénk ko def ak bàyyi ak bëgg ak bañ ak lu ma man di def na tukkee ci moom ak pàgguteefam nu ànd ko lu may def na def loo xam ni moo ma ca may ndigal lu may sànni nay loo xam ni moo ma ni sànni ko bulëf na ci man mukkit lu dul lu mu def ci man te naa sax ci mboolem lépp loo xam ni saf na ko bulëf jëm ci man mukkit lu dul loo gërëm bu wér bu may jëm ci seen nas njëf lu dul jëf ju ràññiku teraanga nanuy wër kapp ak mucc faw nag toraxte nanuy teggee ka dand nu dand ko dugal naa sa moo nit ñépp ak sama jëmm ji ci gaalug sëriñ tuubaa gi yow yàlla seere ko musal nu musal mboolem sunu nit ci jépp lor te def nu ñu lay bégloo ka sant ka dolliku ku nuy bëggatee yan wenn ay bu ko yëkkatee na këpp ci boppam yam ca kepp mu rëcc ko te kuy fexe cant ak mbég ci nun yal na dal di bég te gis lu ko dollik cant ak mbég ba soññi ko li feeñ ak li nëbboo ngoogu xam nga lu nekk yow ku dof rekk dal koy def ku wax it nga jajji ko ku def na nga gis kuy bëgg a def na nga nekk ba xam ku wax na nga xam faw wet ku noppi nga diglu ko ku def na nga gis kuy bëgg a def na nga nekk ba xam ku wax na nga xam faw wet ku noppi nga diglu ko danoo war a booloo faf xarug dee te jox sëriñ bu mag bi nu nuy taaxee ke jëndee wataaki fas danoo war a booloo faf xarug dee te jox sëriñ bu mag bi li nuy taaxee ke jëndee wataaki fas mu jëndal nu ci taax ak wataaki fas ak njariñ caajjana lii gën nay ci say yëf te doo fi des ku yeewu dafay def cas yëfam joxe dal di wéy bu yeggee fa ñuy jëm dal di boole yëfam ni cas ku dof nag dafay boole yëfam yépp yor bu wér ba xëy dee yëfam des fii mu dem du fa fekk tus mayul gaa yi tey ngir gaa yi tey duñu yokku nit dañuy yàq sab dox ak sa yëf dellu gotti mbas ñi nekk fi suuf ak gaa ñi nekk ci taaxi kaw fi suuf si lañuy xal seeta mujj ni cëpp bis ku nekk ca kaw tuubal te jekki fi suusi yow fi suusi la mbooloo mépp jëm si ku daanu rus liggéeyal ba am loo xam ne jar nay wataaki fas te jar jongamaa kiy taaxi kaw joxe ñépp gis danaa sàkku man ndimmal ba am ñàkk lépp lëf te sàkkooti ndimmal nag ba faf joxe lépp des sëriñ bi sarax nu su ndoole ndax nu defal la lëf lu rëy li nu fas am doole rekk kay waral mu fés sëriñ bi sarax nu su ndoole ndax nu defal la lëf lu rëy li nu fas am doole rekk kay waral mu fés fulal sunu gëm fàggul nu dooleeku fit wu rëy musal nu te may nu pal gu ñuy fedd leeke wis nawet bi nu jëm def kom nawet bu rafet bu jub na lépp ni gàññ ak jàmm nuy sepp leeka fas aree nag dugub ak sëb na nangu te jàmm am ku nekk jubookub sangam ak waa këram di mos aree nag dugub ak sëb na nangu te jàmm am ku nekk jubookub sangam ak waa këram di mos sëriñ bi may nga nu xam mbakke te may nga nu nu am may nu def ci li nu xam ak li nu am la nga gërëm sëriñ bi may nga nu nu xam mbakke te may nga nu nu am may nu nu def ci li nu xam ak li nu am la nga gërëm xamle nga lépp luy ndigal ak lépp lëf lu dul ndigal lu dul def ak bàyyi desul koo seeru xam na lëf te am xam-xam bi xëpp nga nu ko alal ji xëpp nga nu ko murit bu nekk yee nga ko te duy xolam baakii kam kuy wax nga fas ni yegg na buy jëf nga fas ni alku na wax yi rafet na yéemu na te jëf yi bon dimbali nu bu lëf desul lu dul di wax ñépp di waj wajee ka wax te kenn du def ci la mu wax dara li lee ñàkk xoram konseeru tey xam nag murit tey dox di waxtaan ak murit te du defit jëfi murit tee nga ne accam te ni cam konseeru tey digleeg joxe te yor yëfam bañ koo joxe kuy dox di santaan ak joxe te joxewul bàyyil mbiram li tax murit yi bon bari sëriñ si bon dañoo bari sëriñ bu dencee lu bari du mën a tee yóbboo ko dem sëriñ bu dëddoo àddina murit ba dëddu àddina waxtu wu jubloo àddina murit ba dëddu ko ndaxam ku bay areenam ba mu ñor mu jënde kow fasam di war di nuru gërëmi ci nga war kookale sànk na mbayam mënal sa nawle buy liggéey yow ngay nelaw ba mu liggéey ba noppi nag nga fab liggéey boobale far ni ko pelam njëgam liggéey yoo ku liggéey fexee la fab la mu liggéey joxe ko ndax boodul liggéey tey joxe dee fi la yërëm awal ca ngir ma woote ca kuuy si fekk nga ne ca kuuy si wul dégg la ca kuuy si daw nga jël ndamam ku bëgg a jot gaayara woon te bëgg a gën gaayara woon te bëgg a jiitu ñara woon ñépp dafay not bakkanam ku not bakkan noti kemam te moona kët ku bakkanam not lee ñu gis bépp kemam not ko ba far war ci kawam matal bakkan jàpp ko war moo gën di jëndi fas di war murit du jëndi fas di war bakkan balay defu fasam ku war fas mënul nga war ku war bakkan moo man nga war dëgg te moo jekk nga war moo mata yéemit nga waram bul topp mukk sa bakkan bul toppalit kenn bakkan yii yaar yëf day taxa bon ku ko bawul du jëm kanam koo xam ni yàlla daa la tax mu ñëw fi yow defal la tax mu ñëw fi yow kuba la tax nit ñëw fi yow gàddu loram loo xam ni lii baaxul bàyyil ku def bàyyil kuba bàyyil kuy waye dee ka way wayal lu dee fi sikk bu ca jëm te lépp luy ndigal defal ku def defal ku ba defal lii ma la wax boo ko bawul yàlla gërëm la nga gërëm yal na nu am sunub sëriñ faw te am lépp njariñ yal na nu dugg ci njariñ faw ak i cant ak i ngërëm yal na nu am jëf ju rafet ak fan wu gudd wu rafet ak mujj gu yéemu gu rafet ak wér gu ànd ak i ngërëm yal na nu am jëf ju rafet ak fan wu gudd wu rafet ak mujj gu yéemu gu rafet ak wér gu ànd ak i ngërëm yàlla li muy def sotti na te lu mu dul def sotti na ku yóbbu xam ni noppi na ci lu mu def ak lu mu ba yàlla li muy def sotti na te lu mu dul def sotti na ku yóbbu xam ni noppi na ci lu mu def ak lu mu ba loo xam ne àtte nag amam ku bëgg ak amam mu am ku bëgguluk amam mu am ku yóbbu sant àtte ba yow mii di sàkku àddina yaa gën a réere àddina nde doonte xam nga àddina nga wuti yàlla ba ko fi loo fi amit ñàkkati ko koo fi amit ñàkkati ko foo fi amit ñàkkati ko lu mat a bëgg néew fi njegam sulaymaana fi jóg koo mën a gis dana fi jóg loo mën a gis dana fi jóg àddina pàkk lay defi yeneen ya ñëw na jóge fi yeneen ba ñëw na jóge fi saaba ya ñëw na jóge fi ku nekk ñëw na jóge fi yàlla deful àddina kër def na ko nii tool ak i ker def ko ni ay tool ak i ker loo bëgg nag fàggoo ko fi fàggul ragal yàlla gu ne ba noppi fàggu yi wu ne te fàggu nag ngërëm lu ne ndax bala ngaa dem tono fi tono du ak jur gu bari tono du aw nit ñu bari tono du soxna yu bari tono di xam-xam ak jëfe foo gisatiw yiw jàpp ko foo seen a teew ay sori ko sori gu biir te muslu ko kon lee nga gën fi kawe fi ku xam yiw te defu ko xam nga du tax mu làq ko ku xam ray te bawu ko xam nga du tax mu mucc fi ku seeru luy jaaye bëtam te joxewul nagum njëgam seeru ga fëcci ko ndaxam dara lu dul lorooti fi ku seeru luy jaaye bëtam te joxewul nagum njëgam seeru ga fëcci ko ndaxam dara lu dul lorooti fi njariñ dafay wékki di jaay muccit dafay wékki di jaay ku def yiw bàyyi lu aay jënd na yépp lii jafe njariñu moo jëkk a jafe daanaka moo gën a jafe lépp lu ne faa moo jafe ngir moo di doomi xam jafe te xam jafe gën a jafe lu dee fi wax ni moo jafe àddina fab ci xam jafe te lu ko mooy nga ba ko fa te xam jafe gën a jafe lu dee fi wax ni moo jafe àddina fab ci xam jafe te lu ko mooy nga ba ko fa lu yàq rek a mata ba nde luy defar matu la ba ku ngab ci yow te du la ba lu koy defar matu la ba ku la ne jàpp ma bu wér te ni la yóbbu ma bu wér lay tee mu dem na nga ko yor te bu ko seetaanaka ba am nga murit am sëriñ defal sëriñ digle njariñ sëriñ dafay defi njariñ di ko digal taalube ba awal ndigal awlu ndigal te jéem a jub jéem a jubal ab sër bi day jofi jofal kenn bañ a des ca àll ba bul bàyyi kenn ci sa goom jarak ku koy ba ci sa goom defu ko gis tagoo ki góom sëriñ du wàcc donga ba wéyal te yóbbu sa muriit bul bàyyi mukk sa muriit ndare nga xam ni sa muriit dañu wéyal te farma ba kola ni nang nangama ba dalal di dem tefar ko ba ngir nit bu bëggee ku ko ba ku ko bawul def musiba luy waralug def musiba loola le mat naa daldi ba ab lar bu nee nanga ma ba ba ko te jàpp sang ba sang ba nag bu ko ba yow ku la ba it bu ko ba yow lu mën a xew jàpp ko yow tey wut xolam bu sedd ba bu sa murit deful la war loru la yow boppam la lor silmaxa buy mbalaka wër ñu ba ko fa wag dokk ba sab sang yow na nga ko jox ku la joxul na nga ko jox ku la joxit na nga ko jox te bu ko fàtte bu ko ba bépp murit joxe ca war bépp sëriñ joxe ca war sëriñ a xam nag la ko war bul def lu dul jox ko te ba yàlla baaw fépp ayib yàlla bu ab kemb ayib yàlla bu kuy jëfit ayib yàlla bu ay jëfam ayib yàlla baaw fépp ayib yàlla bu ab kemb ayib yàlla bu kuy jëfit ayib yàlla bu ay jëfam ayib yàlla bu tey jile ayib yàlla bu ëllëgit ayib yàlla nu mucc nun ayib sunuy jëfit mucc ayib yàlla nu raw jépp ayib te fas lu raw jépp ayib wax jëf lu raw jépp ayib jot ci lu raw jépp ayib yal nañu suula suula suul sunuy ayib fu sori lool ba kenn dootu xoola xool ba gis ci nun mukk ayib yal nañu dàq dàq lool sunuy tawat ñu sori lool te jox nu may yu bari lool yu àndul ak seen askayib yal na nu sant sant lool yàlla mu santati nu lool gërëm nu yokkati nu lool yokku far jépp ayib sëriñ bi sant naa ko lool yal na ko yàlla sant lool moom it mu sant nooti lool cant gu fekk jépp ayib yal na nu boole yërëmaat jégal nu faf nu gërëmaat boole nu fawit xoramaat dox sunu digg ak i ayib ñun ñëpp yal na nu mayaat seddu xolat tóolal xayaat nuy dox dina ataka xayaat sori tawat sori ayib yal na nu boole safalaat te boole xol yi seralaat guy ba xel yépp dalaat mu musle ciw ay ak ayib yal na nu boole jafalaat bu wérte boole nu walaat ba noppi boole nu falaat pal gu nu tee ci si ayib yal na nu boole bégalaat yal na nu boole jagalaat yal na nu boole fegalaat buur ak bor ak lor ak ayib yal na nu boole bégalaat yal na nu boole jagalaat yal na nu boole fegalaat buur ak bor ak lor ak ayib jox nu lu gën loonu joxoon lu gën ci nun loonu joxoon lu nu gënal loonu joxoon boole ci lii nga nu joxoon jox nu ñu gën ñoonu joxoon ñu gën ci nun ñoonu joxoon ñu nu gënal ñoonu joxoon boole ci ñii nga nu joxoon jox nu fu gën foo nu joxoon fu gën ci nun foo nu joxoon fu nu gënal foo nu joxoon boole ci fii nga nu joxoon jox nu ñu gën ñoonu joxoon boole ci ñii nga nu joxoon jox nu yu gën yoonu joxoon boole ci yi nga nu joxoon yokkal nu yi woonu joxoon bul wàññi yi woonu joxoon banoo ko yi woonu joxoon te dolli yi woonu joxoon bul wàññi yi wi nga nu jox yokk ko yow ki nu ko jox saxal ko yow ki nu ko jox dakkal njariñ loonu joxoon yal na mu sax ci mbamu sax te sax ci yërmande ji sax sax ci rafet njortu gu sax sax ci ndigal loonu joxoon li nga nu jox ci sutura ak barke yokku ci dara te bu ci wàññeeti dara deenu ërëg loonu joxoon deenu ërëg loonu joxoon deenu ñag ak loonu joxoon deenu yar ak loonu joxoon ci darajay ña nga joxoon ër nu ci barkeb koo ëroon yor nu ci barkeb koo yoroon ñag nu ci barkeb koo ñagoon jox nu ci barkeb koo joxoon yiwu nu ñàkk jox nu ko woonu xañit delloo nu ko ba noppi nag yoral nu ko bul nangu lëf loonu joxoon musal nu fawwu ci loru te may nu fawwu defaru ci darajay ña defaru ku masaam yaa ko joxoon musal nu fawwu ci loru te may nu fawwu defaru ci darajay ña defaru ku masaam yaa ko joxoon yow yaa di kenn ku dee nga donn te kat du kenn la xala donn yow yaa di kenn ku dee nga donn te kat du kenn la xala donn mboolem ña donn ak ña ñu donn ngay boole donn dellu ni jonn yaa jëkk ñépp yaa mujj ñépp yaa ëpp lépp yemu la fenn yow daala dul jeex te am lu dul jeex may nu lu dul jeex ak dëbu bënn yaa ma te bënn yal naa la bënn am la nga tànn ak la ma tànn yaa mën a làqu te ne fu làqu ku ne fu làqu ndéem du senn muñul kem li ngay muñ la saw yiw di day li ngay sàkku ci muñ nga koy làqe kat muñul kem li ngay muñ la saw yiw di day li ngay sàkku ci muñ nga koy làqkat dangay sàkku barkeeku yiw ak ngërëm te yii nag muñuy seeni ndey bul tawat fa ñuy ruuje tool ak fa ñuy tibbe sax li dig muñ fi diggante bii raw na bët bu ñuy góob a kay gar ña daa bay di muñ ña ngay reeka fab seeni mbay nag di fat bu nee faa ko daa bay na ñëw fab ngaram nga bëggoo na am ngar lu yéemoo xarit bu nee faa ko daa jëf na jël sik payam nga bëggoo na am jëf ju kenn dul xebat ku muñ muñ gu réy faw am pay gu réy muñal muñ gu réy ndax nga am say mébét ku jóg jëm ci ab dëkk gis am ngërëm da cay dal di aw wiy njagam def na nit mu ñuy ngir ma jëm nag ca dëkkum njariñ xanaa dëkk boobee nga jëm léegi it bu ñuy fay ku nekkub liggéeyam ëllëg ñu ñee gaaya daa muñ lu diis ak lorit te loo man di gis ciy lor ak tii si xol bu ñuy yuuxu ngay sant lii jar ko it bu ñuy yuuxu ëllëg ña daa dëkki muñ ci dunyaa nga firdaw si lii xam ko kët bu ñuy yuuxu ëllëg ña daa dëkk muñ ci dunyaa nga firdaw si lii xam ko kët maroon naa nga bënnal ma teenub cofeel ma xiifoon nga far jox ma dàggay ngëneel maroon naa nga bënnal ma teenub cofeel ma xiifoon nga far jox ma dàggay ngëneel ma ñàkkoon nga jébbal ma mbooloo kiif ma réeroon nga xëy may ma xam-xam bu teel ma soofan nga far def ma géejug xoram gu saf-sàpp seexal ma jox may meteel gërëm naa la nag def ma ab santkat bu lay sant kay way ci barkeb jabeel samay yëf du jee ndaxte say yëf du jee bu ab sang dul jeele jaamam du jeel damay sant ngir yaa ma dàkkul lu bon bu wér ak ku bon mbàkke yow laa fi neel ku lay wan cofeelam ma wan koy ngërëm ku lay wan mbañeelam ma wan koy mbañeel ku lay sopp dundam gajag dee gajag ku lay bañ bu dee dal di dem naari biil ku dul yow pexeem ak soloom ak mbiram jubul sam pexe jub te yaa nuy fexeel yërëm nooti dolleeti nuy mbég yu réy yu tooyal sunuy xol te may nun noteel bu sii nag bawal ak kajoor ak jolof ñëwan dal di feesal te doo xaaja jeel fahab lii xinam han jamihil wara muridan shakooran bu doy lay ngëneel fahab lii xinam han jamihil wara muridan shakooran bu doy lay ngëneel wutal puutar ak balte wut ak fital tefab lépp nag jox ko yow dann bi wutal puutar ak balte wut ak fital tefab lépp nag jox ko yow dann bi te bul dof baam puutar ak bal ba tax nga fab sak fital naa damay jóg rëbi ku dul gis lu ko ndel la kiy wal di faj bu teqee du jam lëf lu dul àll bi fabal xol bi fab jur gi fab dagg ji te fab kër gi ngir yàlla jox sang bi te gëm yàlla gëm sab sëriñ gëm gu réy te am ak rafet njort tey woolu ba te gëm yàlla gëm sab sëriñ gëm gu réy te am ak rafet njort tey woolu ba rafet njort ak woolu yi yaari yëf la ab taalibey fab te jóg daw dabe melal yow ni waajuy faraasoo ka tex di wollee ka bay tey rafet njortu ba te bul def ku yàkkamti koo xam ni kii bu dee tex di wax kañ bisub ñamte ba te bul def yitam natt moo xam ni mii bu dee ruuji naa kañ bisub dëgg ba awal ngir ma tey jaaba kay waaxu yow di wey rekk kon lee nga gis dëkk ba awal ngir ma tey jaaba kay waaxu yow di wey rekk kon lee nga gis dëkk ba te bul geesu bul jàddeet bul taxaw te yeggoo moyul dëgg yow gàkk ba yoros lëf teekoo di pakkub ku jóg ni day toppi sangam soril pakk ba ku yor soxna yor fas yoraaley alal tee ko na ngay yegge yow dëkk ba fabal lépp jox sab sëriñ yow te wey wayaf toy yi kon lee nga jóg gott ba ku jóg soobu manding bu diisee du dem te manding nga soobu jógal gott bi ku yeggul du mus kat la waa kër ga mus dawal yegg waa ji ba mus nekk ba lu jar dëgg ngay dund yow mii ba dee te koo tollu nee faa la baadoola bi nangul yow baam gépp pal mbaa nga dee ba kuy jaale naa ay laru bi yàlla bi na ngay dund mbaa sax nga dee léegi far te bul dëkk yow mii ci diggante bi ku baaxul ku naa ma ngay dund fen ku naa dee na yit fen ci sa dund bi njagam bëgg ngaa yegg buubal sa kër te fab lépp jox ban ba kii dann bi njagam bëgg ngaa yegg buubal sa kër te fab lépp jox ban ba kii dann bi sëriñ bee ma jox man tiraangaa ki mbég fu may jëm tiraangaa ki mbég topp ma sëriñ bee ma jox man tiraangaa ki mbég fu may jëm tiraangaa ki mbég topp ma bu may jóg tiraangaa ki mbég dal di jóg bari cant xam naa ni man war na ma ku tàggoo ko ay nag te lëkkoo ko yiw bu santul boroomam bu wér bett ma ku am wér akub dund ak mbir mu jub mayam gaa nga koy wax jógal sant ma tey yépp am naa ko man Baabakar tawat man banaa la yawit nag ba ma te yow cant mi gën tawat gën gu wér asal jàpp naa la yawit jàpp ma tawat maa ngi lay daw yawit dee ma daw te kat maa ngi lay muslu it muslu ma te it cant laa jàpp def kob xarit tawat dëddu naa la yawit dëddu ma tawat léegi tàggoo nanum ngir wéyal te bul dellu seeti fi man fàtte ma te bul may ganeetee ka dox saa barab te foo man di jublooti man teggi ma bu sa tànk jam mukk saa genn kër na ngay moytu saa kër ma nit moytu ma moyul saa kër ak saa yaram ak samab murit faw nag yow tawat moytu ma laxas naa la ab tànk yow cant mii te man jublu naa la yawit jublu ma bu may jekki-jekkil fi man faw yow bu may jóg-jógal faw yit topp ma bu may jekki-jekkil fi man faw yow bu may jóg-jógal faw yit topp ma li tax man ma jaaxal samay kem dama demul woon bañuy dem te far jiitu leen li tax man ma jaaxal samay kem dama demul woon bañuy dem te far jiitu leen dañoo jóg ca njël man ma xëy man di muñ ba gaalum ndigal ñëw ma war romb leen ñi far mujj may dox di santoo kadab te kenn seenatul lëf ci man waaru leen ku daa santu aw nit di waaxoo ko daw ñi far mujj koy santu ndax yéemu leen sëriñ bii du maasum ñi teew ak ñi wey ñi teew ak ñi wey ñépp semmal na leen sëriñ bii du maasum ñi teew ak ñi wey ñi teew ak ñi wey ñépp semmal na leen ku koy wékk mbir am ñu lay wékk mbir du leb loo ko mos xam murit sant leen du wax jëm waaye muñal jëm ëllëg da koy dal di jox dig ko ëllëg yeneen dañuy ñee ko kam tey bu ëllëg ñëwee ñi far gën ko faañee murit seere leen te sax ñam wu ñuy togg woo xam ni day xaloo yéemu buy bax xisaw dégg leen li nuy am ci kër gi la nuy am ca kër gëlee koy xaloo gën murit waaxu leen ku jóg soo bu am ngir te sëf ndox mu doy aku ñam layam jeena kët lagg leen ku xam ngir xamub dëkk yor yóbbalam na daw nag ba jot ay kemam jiitu leen ku xam ngir xamub dëkk yor yóbbalam na daw nag ba jot ay kemam jiitu leen ndaxam gaa yi may sii sa kay dox di bañ li ñuy bañ ci man mii du man mii ko def ndaxam gaa yi may sii sa kay dox di bañ li ñuy bañ ci man mii du man mii ko def li ñuy bañ sëriñ bee ko fab def ci man ndeman lott naa sax ci def lenn lëf sëriñ bee ni cas ay yëfam def ci man yëfam rekk laa yor ndeman aw ma yëf dañuy gas ngir ndox di bay ngir dugub mu jox mag dex ak ràcc mbég far ko sif dañuy jàng xam-xam diwut ay dërëm mu jox may dërëm sol ma xam-xam ba faf dañuy wut ngoroo kii goroo kii jabar mu yot may goroo kii jabar lii du kaf dañuy jënd akay jur mu ñëw far ni cas lañuy jur akay jënd jébbal ma tëf bilet dann yombul te moo dàqa jam kemam yépp buy téq cin dal di saf bu dee téq lor dem njariñ dal di ñëw ngërëm yegg ci xol sedd kii baaxi jëf du muy ay moroomam te nag am xelam du dañ mooy boroomam ragal naa suruf dafay dimbalee kay fabee kay jariñ di may ñépp ab yar di diglee ka def dafay wattu boppam di wattuy kemam du fiiree ka jannee du wan kenn laf réyug ban du tee man ma jóg jëm ci yow ndeyow dong laa am ci ab jublukaay réyug bon du tee man ma jóg jëm ci yow ndeyow dong laa am ci ab jublukaay barib tir du tee kay ma jóg jëm ci dex di yaakaara set nag bëggën jéppuwaay amul gàkk boo xam ni mën naa waral ma jóg mooy la ngir yaa di saapootukaay bu may réer a kay tax akay bon jëfit samay njortu ñaawul ci yow ngën ji baay ñi baax ak ñi bon seeni jëf yaa ko yor te yaa gën ci ñoomi ndey ak ay nijaay danga xam ku dul man te man aw ma nag ku dul yow faral def ma ab wuutukaay te yaatal ma bënnal ma may ngën ji dex gudul ngi sa kay fer akay jeeka daay te feesal ma ak kee gu gën gépp kee gu saf yàlla saf ñépp may fab di jaay ba mboolem ku ñuy ñee kaxal seeta ñee ñu far bokk nuy ñee ci bépp jataay ku ñuy topp ñee nu ku cay topp ñee ñi nuy topp nuy ëpp ñéppi nga ñaay fabal lii nu wax may nu fawwa ngërëm ngirug baax akub takku lay roy du aay tabeekub yar ak yërmandeekub lewet nga fab xeexe yow mii ba not jéppuwaay li lee tax ma far dëddu ndaw dëddu mag te jëm nag ci yow def la ab jublukaay li lee tax ma far dëddu ndaw dëddu mag te jëm nag ci yow def la ab jublukaay ndaxam dag bu dul dox fa dee fii xare te naa bëgg naa pal dafay say du nit ndaxam dag bu dul dox fa dee fii xare te naa bëgg naa pal dafay say du nit bu dag yépp booloo fanaanee fital te yendoo fital nag ba sangoo deret nga gis muy fanaanee nelaw bay xaram di yendoo larax nag te rëy ay mébét bu dee fee bégal gaaya jam-jam ya wër mu dem fay xuloo kay jaloo kay tawat bileb dag yëgul ndax ni tuubee ko war yeyoogul tawat nag yeyoogul xulit ndafam gee ko dal kët tawat koo ko war te jóg tuubi ay dal na dof buy texet torox naa te rus man mi gis saa ayib na may def ba man saa ayib jépp set bu fekkoon ni mën naa faxas ay ayib ma fab saa ayib ji faxas man mu set faxaskat bi yow mi faxas ay ayib lu tee nga faxas saa ayib ji mu set te saa soo yayoo fapp saa lépp set te jag faw may waaju léppam rafet yërëm maa yërëm man jubal maa jubal te may nuy ngërëm nag ba nuy ngën ji nit faral nuy ayib nun fegal nuy ayib te may nuy ngërëm nag ba nuy ngën ji nit sëriñ baa ngi nii jox na lay yëf yu doy yeyootoo lu dul jóg liggéeyal ko tey sëriñ baa ngi nii jox na lay yëf yu doy yeyootoo lu dul jóg liggéeyal ko tey ku daa bay ne ab xiifatee mbay mi jag bu koy dab wëreetee mu jóg dal di bay ba ngay xiifa kay mar nga am lay wujub ndetay ji nga reggee amu wenn lay lu dul fab sa gob bi di doomal di sol te ak dund moo dib nawet lee mu wéy ku am sab nawet nag di farloo ka bay bu nooree nga ree kon te bég mbég mu rëy ku sanniw sasam feete sanniw sasam bu dikkee fa yow mii bayal bul koroy te koo seeru kët am na aw sa suuréy wudul jeete deewul wayal gépp way na say ittëri yow te sag farlu sax lu dul lii du may kenn ndam baate way murit boo bëggee raw lu bon jot ngërëm moyul denc soxnaa ka denc alal murit boo bëggee raw lu bon jot ngërëm moyul denc soxnaa ka denc alal na ngay jajjakay ante bul gas di jal fi sag wet ku koy def du gis ndox asal te kuy denc ak jur ma ngay gas di jal na ngay farlu cib gas te loo gas anal na ngay gas te loo gas fabal génne yow lu ñëw fab ko jox sab sëriñ far mu jël sëriñ moo di am ceebaloo tax mu sax texal lépp loo bëgg tey bay di sol te bul sàgganam ceeba farlul te bay ku sàggan ci am ceebo yalwaani njël di sàggan ba say kem di góobee ka gar akay dëgg ngay mos lu lii kat gënul jógal léegi yow mii lebal sab sëriñ lu seddub xolam kon ñu seddal sa xol bayil yépp ak ñépp jëm ci mbiram ku jóg soobu ngir yépp dem til xamal ku teg ñaari tànkam ci kaw yaari ngir bu bëggee demit lottu ci dem yëgal defal sab xol ak sam xel ak sag xalam ci sab sang lii lay mayug dem fabal tegal say mbirit ak sa jur gépp cib loxoomit teyam képp doy loo ndigal tegal say mbirit ak sa jur gépp cib loxoomit teyam képp doy loo ndigal te bul jàll bul jàlle lëf sab sëriñ yarul am murit day yaroo kay jubal bu sab xol bu say gët di gis lëf lu dul sa jëm mi sëriñ ngir mi lee jub awal na say tànk booloo ci kaw menn ngir njëgam bëgg ngaa yegg foo yëggagul sa wax jépp nay jëm ci sab sang yow sa jëf jëm ci moom ak sa mboolem alal ndaxam gaayi man maa ma neekum murit bu nangoo ma teg lëf bu gàntoo ma ba ndaxam gaayi man maa ma neekum murit bu nangoo ma teg lëf bu gàntoo ma ba bu del seete tuubit moyam gam moyan ma jéggal ko dal koy joxañ àll ba bu dikkul te far jàpp ak njaamburam ma ñaanal ko aw yiwudul jeete ba bu dikkee te jox mab liggéeyam ma fab liggéeyam ba jox ban ba kiy sang bi damay wan murit ngir ma gën mépp ngir bu jekkee mewey man ba jot dëkk ba damay wan murit ngir ma gën mépp ngir bu jekkee mewey man ba jot dëkk ba bu jekkee du tax nuy béjoo kay xuloo béjoo kay xuloo lii du may kenn ba sëriñ buy xuloo ku murit dub sëriñ sëriñ day defar am murit mbaamu ba murit buy xuloo ku sëriñ nag jubul njagam yow mënoo koo jubal far ko ba murit buy xuloo ku sëriñ nag jubul njagam yow mënoo koo jubal far ko ba sëriñ boo bëggee man ma yóbbaale la na ngay wattu kon kenn yóbbaale la te nit daana ànd ak ma nit bëgg a dem bu yàggee mu naa man ma daw randu la ndaw ak mag ku ne bëgg a dem waande nag ku wey yombatul yiy dogit yomb la damay dem damay dem damay dem ku dem ma dem man ku dul dem ma dem man bala ku bëggul lu dul yàlla ak ban ba mi du sikkal samay mbir asal dëgg la ku bëggul lu dul aw ngirum ban ba mi di wut yàlla kookee sama soppe la njëgam bëgg nga aslëf lu dul dem jógal nu dem ngir demay mbir fi lépp àll la na ngay wéy te boo sonnatee noppulul te boo noppuloo dal di wéy noonu la na ngay def li ngay man ba nag loo mënul te way nag ba kuy lim ña way jëkke la na ngay julli tey woor akay maandu yow di daw lépp loo xam ni mooy yàlla la na ngay may ndaw ak mépp mag yar bu rëy njagam bëgg nga yow képp nit fonk la sëriñ jaane sab dénk ngi yaa ci des fabal boo fa bee day nu yóbbaale la jóg way fi man Baabakar way wujub sëriñ beeki bokkam ak i taalubeem ma jóg way fi man Baabakar way wujub sëriñ beeki bokkam ak i taalubeem sëriñ beeki bokkam dañoo mat di way te ay taalubeem it dañoo mat di yéem defal leeni way war na mboolem ku man te man mii ko santaane kat maa ngi jéem sëriñ bee yayoo way wu saf ndaxte moo defar jaambur ak mbokk ngir yërmandeem ba mbokkam mu jóg mel ni ab janta jóg te ab taalibee mit ku koy gis diraam ndax menn mbokkam durus benn bis te ab taalibee mit du tàggoo ki jaam te foo seeru mbokkam mu yor ak njëgam ku gis taalubee mit mu yor tedd ngaam defar naw nitam jann waayam desul junee faajagul kii teral nay fereem mosal naw nitam ñam wu gën wépp ñam ba moo tax ña daa dem fa buntam ba faam magum ban ba moo gis ma ngaa ku magam gonek ban ba goo gis ma ngaa kii goneem njëgam yow dangay topp toppal ma kii ku def lëf lu dul topp kii yàqireem dafay sàkku jib sang mooy ban ba mi te koo gis mu mooy ko nga gis tus kareem ku koy may akay romb akay wey du man damay wut ngëneelam di fas wëllëreem ku koy mooy akay romb akay wey du man damay wut ngëneelam di fas wëllëreem ba max naa ko saa ñépp ak seeni jëf te saa lépp fam naa ko tàbbal jibaam te saa lépp ngi yal na fab lépp jël te wuutal ma jëmmam jamay sol daraam te yàllante yàllante yàllante man ma diw karbatam mbaa ma dib taalubeem te yàllante yàllante yàllante man ma diw karbatam mbaa ma dib taalubeem bu tàngee nga daw yow bu seddee nga ñëw kalay ñàkk ñàkkul kalay am amul bu tàngee nga daw yow bu seddee nga ñëw kalay ñàkk ñàkkul kalay am amul te kuy bég ci sa ñëw du nit kay merit ci sa dem du nit ngir wayoo doo ku mar kajar bég du yow mii kajar mer du yow wayoo fenn moo tax jaroo lëf xamal bu nee war waras lëf nga fëx dal di daw bu nee nux nuxit lëf nga ñëw cam demal dem ak ñàkk a dem dund ku dee ci yam ci yow loo ci def doy na buuray dogal lu am moo ko def moo jubal gaaya jub nde moo def ci ñoo mag way ak aw ndigal lu muy def ci nun lépp yal nay lu gën lu dal xel seral xol lu jub luy bégal wéyal yow te muñ ndax sa der bii rafet ku sa der rafet jar nga njëggoo jërul ku way deng muñ ñépp àttan ci yow lu dul àpp ci yiw te way gaa waral amal jom amal ngor amal bopp lëf te def mbañ wuru si yàlla boo bon bonal bu nag baaxeyam képp ngir loo ca gis dafay walle walleelu yiw gën gënal malaanum kerug pénc ngi nag ku for bu bëggee na fab dal di sangoo te jël malaanum kerug pénc ngi nag ku for bu bëggee na fab dal di sangoo te jël ku lay romba kay wéy te lor ak njariñ du tukkee fa moom it lu muy wàññi xam ku lay romba kay wéy te lor ak njariñ du tukkee fa moom it lu muy wàññi xam ku bëggul lu dul ndox te jóg teg gi dex lorul dex du tee dex ni muut ak ndoxam ku sangam fegal lor te jox koy njariñ ku jóg romb koy wéy du tee muy gërëm ku ràccub añam sif ca soowam mu jub di fas boo ko xaarul du tàngub xolam bu sab jant fenkee ku lay lëndëmal bu say may ñëwee dëgg kuy tee nga am ku sab sang yaatal ku lay deeti tas ku sab sang mbay ndam ku lay xañ sa ndam ku sab sang yaatal ku lay deeti tas ku sab sang may ndam ku lay xañ sa ndam murit sax bu sangam safoo ay mbiram ndaxam kenn du mën lëf ci soofal mbiram murit diggam ak sang baadiw sasam njagam jag na kenn mën la yàqub deram bu diggante sang ak laram nee na ñax lu ban jóg fa saytaana it jóg fa dem sunub sang nun diggam ak nun na jag tewir leere nib seetu gën ab dërëm xolam ak sunub xol na def benn xol sunuy jëmm def jenn nuy ab gojam bu dul dog bu jot sëkkiteenu mbégam nu far nag di tàbbee ka génney mbégam bu dul dog bu jot sëkkiteenu mbégam nu far nag di tàbbee ka génney mbégam bagan yee nu tee dem dekon leenu dem bagantee ki bakkan ba tey ñépp dem bakkan yéenu tee dem ndekon leenu dem dogantee ki bakkan ba tey ñépp dem ku jóg jëm ci aw yiw bakkan dal di fil mu far jekki saytaane def ko laram nanuy def nanuy def nanuy def baraw bakkan mii filee kay teree am ngërëm ndaxam kenn amul ndam ku dul waaju raw bakkan raw gu biir kooku moo làq ndam bariw nit akub xaalis ak taaxi kaw te moo moo bakkan lii du faj lëf ndaxam ku nii wiy alal ak ku niiwul alal asal seeni bàmmee la xal seetayam ku xam sax du def ay dërëm muy alal la muy def alal moo di sellug jëfam ku xam it du fab nit di def wéttalam boroomam ba lay jàpp def wéttalam sëriñ baa ngi wootee ka waaru nitam akay digle ak tuubakuk jëm kanam jubal nay mbiram not na ay noonamit mi ngi nag di sàkkoo jubal gaa yi gëm defar nam ngërëm pakk nekkul ngërëm koraw am ngërëm doo tërëf doo gëlëm ku toppi waxam doo torax doo suruf ku xam jox ko say mbir te toppi waxam defar nag saxaaram ba dootul ayib ku war dal di raw ab kemam jot magam li muy digle koo xam ni kii dang ko def te sellal ka doo ñàkk ndam ak xoram li muy digle koo xam ni kii dang ko def te sellal ko doo ñàkk ndam ak xoram ku jóg dugg gaalu ndigal gii di wéy te génnul duwoo loolu àggey ngërëm te tey laa fa soo dugg gaalum ndigal di wey nag ba jot bépp teerum ngërëm te man dénk naa kat ginnaaw ak kanam sëriñ bii bu wér doy na nag maa ngi dem te man dénk naa kat ginnaaw ak kanam sëriñ bii bu wér doy na nag maa ngi dem jógal dëgg yow fekki buurak ñu ñam te bul des fi ñee ñiy féréwlee ka daan lu baa doo la am am la fag fi tuuréy bu ko dag bu bon dee jisit dal di daan ku nekkul di boorit na def ab dagam bu kenn dul féréwlee ka rusuloo ka daan na ngay dëgg dëggi murit mbaate ngay sëriñ dëgg nag buy fajal ñéppi daan ku lay bàccetig ndomboo ka sakku ci yow bëre demal wooyi ndaanaana ngëneelam te dem tëri ku lay yàbbu ndaanaana ngëneelam ñëwee mu deñ baset wi ci diglul tuuti léegi sa ndam bari du caaxaana kay teesante bari yee ka koo ragal bu dee yegg si mbër moo seeru day ret ba daw sori dafay mel ni booba takk-takk ci biiri mbër lafal fi ginnaawam nekk fa mboolem ku lay mere ku lay raasa kay wuti yow na lay fekk fi guronam ngaaw ndigalam tey sant kay daw lu muy tere dafay kenn nit koo xam ni suuxal na képp nit te jenn jëfam suuxal na jëf yépp moo gore ngoram gi la jiitoo gaa yi am ngor te sell ngor bu seeroo ku ñuy sànnee ka sikkal mu dem fori du yàq du yàqal kenn kuy yàq muy defar bu ñuy nelawit muy wër këram gépp a kay tari tabarkeematee nit ñépp xëy benn bokk bon te jëm sawaray reccoo ka yuuxoo ka terteri fajal nanu lor ak aajo ñeewunu kenn tey te ñépp a ngi nii ñee ngir danoo sori luy lore soree nanu faw ak lor te sax ci mbég ak njariñ ñu dàkkul nu mboolem luy waral nit di firfiri sunuy solo ak mboolem sunuy pexe xëy na jag ci barkeb ki ñëw ub jépp làmb ba dem tëri sunuy solo ak mboolem sunuy pexe xëy na jag ci barkeb ki ñëw ub jépp làmb ba dem tëri subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillah